asalaamaaleykum mbokki internet yi ginnaaw bu ñu leen nuyuwaatee kenn ku ne sa tur ak sa sant di amal mbégte contentement di jàkkaarloowaat ak yéen fii ci Dakar kon niñ leen koy faral di defee à chaque fois di leen toppal làmb ah, di seeti ndaanaan yi di waxtaan ak ñoom seen biir kër yi mais aussi di leen fekk fi nga xam ne mooy seen bërëbu entraînement tey nag ñu ngi Zac Mbao seet si ki nga xam ne moo di Moustapha Gueye numéro 2 ñu fas yéene waxtaan ci li nga xam ne nee naa la moom la Sénégalais yëpp di xaar mooy le 5 nga xam ne ci la diggante ki nga xam ne moo di Modou Lo ak Ama Baldé moom nag Moustapha euh, numéro 2 mu nekkoon koo xam ne ni tey war naa xam Ama Baldé bu baax ndax jotoon nañoo laale wala amoon nañoo jàkkaarloo mu fas yéene jee waxtaanal mais aussi ñu fas yéene jee waxtaan ak ci diggante ak moom euh, lan lay xaar ba contrat yi tey jamono ji dugaatagut ci li nga xam ne moo di bi mais aussi tey ban analyse la ñuy ñëwal ci li ne moo di diggante làmb jooju noonu nga xam ne moom la askanu Sénégal yëpp di xaar balaay boobu dama koy daal di bàyyi rek mu nuyoog mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi koy suivre en direct fii ci Dakar People salaamaaleykum Moustapha Gueye maa ngi lay ziar doolu ziar doolu ziar maa ngi lay ziar bu wér euh, di nuyu Dakar xam na fi ngeen jóge sori na loolu surtout sama jigéen bi moom kenn nga moom fu mu ñu woo a ñëw ndax ndax làmb rek la ñuy moom la ñuy topp moom la ñuy la ñuy lépp ci la hmm. mais tey la la def ñu fekk la sa bérébu entraînement nga nekkoon den entraîné ñun la tey nag fokk ñu làng waxtaan waaw waaw xam nga da nga ma fekk may entraîné pare gu ma ndax papa boo jëndee dama dégg coow mu bari muy coow ci télé beeg di wax expliqué moo tax ma làqatoo ni entraîné pour yoxosu ko moom ndéygéey boole leen daan leen mais <laughs> papa ñeme na la nag. non papa damaa ñeme papa sama commande ñi ko woon toog yàgg dafa yàgg. ñi ko bëggoon bari na. ñi ko bëggoon bari na et moom mu am lu muy sóor man nag am na lu muy sóor ci man. papa papa. papa ah, bu ko neexee ne majji majji mais majji majji am na lu muy man. est que néew da laa jékku. non mënu maa jékku ndax mu xam naa ne ndéygéey mooy utu sëriñ te ndéygéey paa yi xam naa leen. Mm. waaw waaw paa yi xam naa leen ndax ndax euh, ndax papa boo jëlee xam naa ne fu ma langaabu lay ëpp man mi fu ma langaabu laay bëgg ma tamit man ma na xam ne fii ba daaw ak déwén xama sawaru ci waaye bu fekkee ne bëgg ko jàppale maa ko ëpp problème téeméeri yoon ak jënam jàpp maaj maaj yi mënul ñaara ñàkk bañ a yàqamti parce que moo la dëkk moo la fekk fi nga toog ne la yow la soxla ma moo ko man koy dël dëkk ma dëkk na la de kan la ma ma hmm. ma ko may dara maaj maaj hmm. ndéygéey kër gu mu dem bu génnee ma dugg waaw parce que ñoom ndéygéey mooy ut sëriñ rek di togg togg yi di yàq-yàq yi waaw géej waaye jàppale ko waaye nag mbër la xam nga mbër day toll si tolof tolof mais boo tollee si tolof bul xool xaalis bul xool dara ngay xool nga génnee si pax mi waaw làmb noonu la demee man bu ñu ma daanee damay xool ku gën a nooy ma jaar fa moom moo gën a nooy ci man bàyyi ma jaar fa rek. est-ce que jàpp na yaa gën a nooy ci moom. déedéet moom xam na. ah, ah li nga wax léegi da nga ne làmb boo daanoo da ngay xool ki gën a nooy. mais yow la xool tàmbali. non kon na gis ku wow. papa dama koy sonal. sa ba ba suñu bëri te bu forcé moom dama koy jor mu wàcc. ragalu ma loolu de. Eh, eh, xam nga làmb. sport la. sport dafa ànd ak escopar. soo amul xaalis doo ko def dama toogi. dégg <laughs> boo yoru xaalis jóge diin ya ñëw toog war a lekk ginaar. Mm. ba sa digg ba ngay waaj tëdd laal kusan. Mm. loolu foog ngay xaalis boo yoru xaalis doo ko def. moo tax ñu ne mbëri foog nga am ku lay jàppale. maa gërëm as Ndoukoumane borom Ndoukoumane transit. mais sénégalais yi nee nañ combat bi dañ ko yàkkamti tey papa moom pare na ci yow la ñuy des moo tax ñu ñëw seet si la nan lan mooy problème bi. ah xanaa mu ñu woo Baye Ndiaye rek wala ñu woo Luc Nicolaï ndax Baye Ndiaye bëgg na combat boobu. Alburaax ba mu jaay ba muy nekk Sandaga nekk xale sama xarit damaa ko yar di gërëm Masata di gërëm Aziz Ndiaye ñooñu làmb lay dund ba duñ nekkee nii mhm. Aziz moo tëgg sama combat xalifa ngiraan bi demoon sama masuwaar double fracture bi. ngiraan ngiraan yi boo déggee ma leen daw Aziz Ndiaye ko tëggoon métti woon na yii yàpp dama koy màcc léegi doo ko sàqar mi dama koy màcc kon nag Moussa Faye pour nga daan papa du yomb de déedéet moom moom dama koy ngañam ngañam moom sama waajoo papa papa moo la gën a xam ne moo la gën a xam ne am na bis bu rëy ah. barki Seydina xam ne yàkkamti ma ko du ko laaj du ko woo du ko message mhm. ñoom ñoo ma soxla nañ jaar fi ñu war a jaar te su may génn dama am beneen façon génn bi may génnaat mhm. bi may génn sax mbaam laay génne baa ngay génn waaw ànd ak waa def sport ànd ak Mika ànd ak bulo waa salle bi génn ñu def délégation lamb ja barke Serigne Bamba Mbacke léegi la est-ce que gis nga Papa Boy Djiné ni mu toolu jamono ji forme yi mu nekk ah noonu déggee moo jox ay laax rek laax rek la koy jox kese laaxu nag araw la koy jox nag moo na ko jox sangal <laughs> ndey sa mbër mi nee ko mu ñëw ñu moom rek laay xaar barke. moom nee na pare na yow yaa ci des. kañ la ko wax. pare na. papa du pare maa ko njëkk pare. lay def. alhamdulilah. ci ci foo mu fekk ma may liggéey maa yaa ngi yaa ngi ci yaa ngi ci. maam kon gars yi dañoo juum waaye yaa ko njëkk pare. déedéet maa ko njëkk pare téeméeri toog di ko xaar xam nga làmb bu yéexee rek ci ñoom la. man je suis toujours pare. barke Serigne Bamba Mbacke làmb dama koy fexe ba keroog ma koy bàyyi. barki alxuraan karim kenn mënu ma ci génne ci làmb ji kenn mënu ma bunu xasaal kenn mënu ma siis ak di def ay des ba ma génn làmb ji ma làmb ci ci ci laa yoroo waaw xam nga làmb dafa doy waar moo tax ñu bëgg ko man mi dama ko bëgg waaw moo tax nag lu ma ci wax rek dama koy dama koy nangu mais làmb dafa métti de métti na loolu boo demee ba dama sama soir double fracture ruy nga koy naan 45 jours nekk hôpital benn mbër dundugul euh, loolu ci làmb ji gi yàpp léegi foog mu nooy carrément ma ko commencé màcc. misu laay laal léegi mais yàpp boobu du ma ko laal parce que mënu ma ko yëg. dama koy màcc ba mu nooy ma ma warax. mais boobu kon la nga fayee ko woon lépp da koo da nga koo fajoo. non dama la ma fayee ko yooyu yëpp dama ko fajoo waaye Aziz Ndiaye. al amin moo tegoon combat boobu après dafa foo waa Sandaga bi xaritam yi ku ci nekk jox ma jox ma li may jox ba ma xoolee rek ëpp na li ma fayee ko ci combat bi. moo fay hôpital bi. du nuy Masata. xam na suma xarit la. yaa ngi ko yàlla dafa jàmm masata masata day jég saari woo ma looloo nit nga nit million tuddul million laaj moom tudd meloo woon nii meloo woon nii barki alxuraan million loolu tudd ñi ko yor ñëpp dañoo soppeeku waaw dëgg la Balla Gaye laaj mu yor ay million da soppeekuwul baax moom Balla <laughs> sama xarit ba <laughs> yaa ngi ko yàlla ko yàlla dafa jàmm séeri buri suma xarit la suma xarit la million moom ñi ko yor ñëpp dañoo soppeeku mais am na ñoo xam ne yor nañ ko te changé wuñu waaw mais ñi ko yor ñëpp dañ naan million meloo woon nii tudd même ñu bëri ñu ko yor dañoo say soppi nit dañu soppeeku naa ànd nit man ànd naag mbër ci làmb mu xale nekk xale ma ànd ak moom quatre-vingt mille ba cent cinquante millions musuma may dërëm musuma may cent mille waaw mooy làmb dafa doy waar làmb moom nit ñi am ñoo xam ne xaalis lañu topp ñun jaamuñu xaap ñu c'est les culture lañu topp làmb ji lañu topp parce que moom moo lañ xam xamuñu leen waaw waaw mais kon yéen li ñuy wax ci mbër yi loolu dëgg la quoi mbër yi ñu ci bëri des fois boo leen di jàppale ba ñu nekk xale buñ màggee dañ lay daal di beew am na ñoo xam ne génn béy lañ de sànguñu taat dàq yu weñ hmm, am na ñoo xamante ni sànguñu taat dàq ñu weñ mais mais moo tax du ma ñëpp laa ba ma léegi man rek samay dox su ma soxla ëmma dem gàll ëmma su ma soxla Balla Gaye dem kër Balla Gaye su ma soxla Ama dem kër Ama su ma soxla Tapha Tine dem kër Tapha Tine mbëri fu ñu ma fekk tey seen ajju ma laa koy xaar buntu këram mbër yi foog ñuy fàttaliku ñu àndal Siteu daa ànd ak xaritam ba xarit mu ngi àdduna mu tabax kër xolu kër tabax ko nu méttee solo may ko xaritam loolu ban mbër moo ko def kenn Tyson mm-hmm. Mohamed Ndao Tyson mm. moom moom bul faale ba mu demee di bul faale ànd ak xale yi ba xale yi nekk ay champion mm. am ñoo xam ne mënuñu am combat jibi mbote papam gaañoo mu dëkk Pikine mm. ñu miraas kër ga tey dañ jënd kër ga may ko jiw mbote ñaari mbër yi ñoo ñoo def lu baax ci làmb ñeneen ñi kenn defut dara xanaa Balla Gaye yi suma xarit la la jox Balla un million xarit suma xarit la suma xarit la yàlla def na loolu war naa ko jëli sax moom parce que foog mu wala moom ministre des am ñu ma wax ak moom parce que ñàkkul xale yi nekk géejawaay ma am lu rëy ca géejawaay di jàngal xale yi lutte sol ak lutte gréco-romaine laaj Jóob yàlla na ko yàlla defal jàmm ministre des waaw bala dina fa yóbbu dina fa yóbbu Balla dina fa yóbbu wala li Balla moom nit ku baax la wala bu seetee dañ dañ foofu ma dem fa taxaw wax ak laat wax ko li xew ci làmb ak li xew ci sport changement bi ci am daal na ko trois fois champion d'Afrique laa def battu lama-lama Atanas Assane ba mi laa Balla aaruna à Burkina Faso ba tey kër recevoir mais gars waay dañ yi dañ lay fàtte waay eh, Yaxya Diop Yékini bii ba mu jël sable ba moom moo jël jaas d'or la jaas non non moo jël sable d'or bi moo jël jaas d'or ba keroog dama bëri ba Séné ba Sénégal yi daw na ma Tapha gi lii la la mën leen lutte mooy lutte gréco-romaine lutte au crapaud fa laa ko génnee. est-ce que amaan na ko ko def ci làmb ji. déedéet Niger su ma demee ba namu solani seen soow bi mooy solani ba ma bëggee soow ma tuur aw ma ko dama leen jënd ci ñàkk téeméer xool ko muy solani <laughs> ma tuur sama bopp daw dëgg làmb yëg ni kontaan na ma àggaagaa ci taxul ma ne ko a ma ne ko ma àggaagaa ci taxul ma ne ko muy lan mu ne ma loolu soo looloo soo gisoo dara mm-hmm. ko yaay yaay bi. ci la toog ba mu nekk mu yuuxu yi ko nii man na ko yéex yéex ni mel ni mu ne làmb góor a neex ay ko ci dee ñu sullaa xool déggal yéex a jóg yéex ni lu wax yéex a jóg a neex ay ko ci dee ñu sullaa hmm. wax dëgg daa metti làmb ñun xam nañ valeur làmb moo ko tey dañu ñaan yàlla defal jàmm ñaan yàlla defal jàmm mais mais foog xale yi ak ñi nga xam ne tey dañuy soog a dugg ci làmb ji xam kan mooy Moustapha Gueye numéro 2 ndax nag euh, da ngaa toj làmb ji. toj euh, mais xam nga trois fois champion d'Afrique. du caaxaan du caaxaan nañ ma boole sax ma am ku ma gis mm-hmm. balaa maa transhumé. transhumé jëm fan. <laughs> dëkk bi gaa yi dañu ko transhumé de. génn dëkk bi de demoo de. Eh, damay transhumé xam nga keroog euh, Macky Sall ba mu ñëwee Fass maa takk sëri ba RTS na ko Sall ngaari Bourguette li nga def ci mbir bari na wante weddi sa xanaa gis bokku ci mu jël aéroport bi jox ko Pape Mayel Diop Pape Mayel ak bëgg làmb ànd ak Abbas Ndoye Malick Marème Ndoye ànd ak Moustapha Guèye waaye ba gars di xëy aéroport ba tey xëyuma <laughs> sax loolu ah moo ma jaaxal ni moo tax ma ne ko Macky Sall ba nga ñëwee stade man maa wax si Sëñ Ping ñaaw ha ba mu xool ma ne ko lukki lukki xool leen ma ay wér haat ma ne ko Sëñ Ping kontaan naa ko mooy président Chine mm-hmm. Macky saal woo ko na ko. mais mu woo ko na ko kii kala la na ko trop bi xaala mu ne ko bool naa ak moom mais ba tey dara ñëwul xanaa Macky daa am ko jox mu jaar la ko feneen waaye man Macky Macky moom xanaa loolu du yéex ndax naa la woon bi boo ko mënee monté nga monté ko fi ma jëyee Macky Sall jàkkaarloo moom wax bàq ko loo xamante ni amul Sénégal waaye mais gar mi xanaa ma si réew mi ana ñu ànd ak moom. ñu ngi lay dégg de en face fi nii fii moom. site bi de ko yaakaar ñu. mooy bu baax bi. xam nga keroog dama toog sama kaw kër dégg wit wit yi weey weey man lañ ci man la jëm si daw bale kër gi yaakaar na bu ñëwee ci man lañ jëm si njëkk de déy kër ñu dem déy déy dëj nekk dëj romb nañ buntu kër gi nii romb nañ man ñi dañ maa fàtte wala di sama loxo naan Tafa Gueye man leen man ba gars yi maa fàtte am na ma ci bokkul danaa waxatul nag ba Tamba à Tambacounda Bécaye Mbaye xam na li ma ko wax Jordan buur daan Jordan maa ko Tambacounda hmm. armée maa ko daan fëgal la maa ko Ndiame Sarr maa ko daan Gallo Dieng maa ko daan Cheikh Niang njaarim wëru may moom mi wër coow mooy daan mais man daan naa ko benn yoon te njaarim li ma def ci mu réew su ma neex bàkk ko li ma def ci bari na wante weddi xanaa gis bokku ci gu salaan dàq ci bu ci dem ku ñu ngem nga daan ci man gars yi nañu wax nañu wax ci làmb waay te bàyyi caaxaan yi wax ci làmb làmb nañu wax ci làmb waay man làmb rek laa gëm gëmuma leneen barke sit bam loo wax salaam tey ma tontu la ndax sama yaram dafa tàng waaw tey la ñuy waxtaan ba ba ba génn télé. il faut ma wax Ah? dama bëgg tey euh, mbokk yi nga xam dañuy dund làmb amateur làmb yi xam ne yow mii tey da di champion boo xam ne ni ku mat a bàyyi xel nga ah mais ni wax dëgg yàlla am naa si ay xarit yoo xamante ni dañ may woo di ma jàppale Ola Bazou sama xarit bi mun ma ko fàtte lu ma bëree pare mu woo ma ne ma ñaata nga bëree ma ne ko temps ma ñëw ma jox la ko sec liquide la ma koy jox du laal xaalis bi sec bi day yéex na ma maa la ko may Ola Bazou yàlla ko yàlla defal jàmm suma xarit la mais woo ko jot ko moo gën a jafe sa àddina mais yàlla na ko yàlla defal jàmm ak lan ngay laajat dama lay laajtewaat sa diggante ki nga xam ne moo di Ama ngeen laale woon ay jamono ah eh, Moustapha Gueye numéro 2 ku ko gisoon ay jamono ah mu nekkoon ci forme nekkoon amoon forme boo xam ne fu mu génnaanee ci làmb rek nga ne mbër maa ngi. waaw waaw combat boobu damaa ba ñu ma gis nañoo kontaan waaye xam nga jamono jooju ku ma waxoon Ama Baldé dina ma daan du ma gëm. boobu champion nga boobu damaa doy waar. Balla Diouf day bëri man ba mu neex ma mun a ma doo nit si tànk. ku ne day bëri man na ma li nekk si yow ci doole gisuma ko ci mbër waaye ama bëri moom dafa jafe dafa metti ama waaw bëri moom metti na trop trop trop trop. ndax xam naa ni moom supporter yi fu mu la fi la fekk beneen tiset doo ko sol bu dul tisetam hmm. tisetam rek mooy feeñ ci bi jaay jamono lu amoon. na euh, balaa ngaa lu mu la laal lu ne am na lu ma tuur ci géej bi. téere yi commencé tekkee ko ma yaakaar ne man maay peer comme bal bii nii boo ko peeroon may ma tuur dalu ko ñu bëre ma sànni góos mu fay ma daw droite dàq ko taxaw lër ko ko mu mu ëpp ma boobu amoon naa benn paa mara boo xam ne paa bu ko daaw nee boo aree ñaari paa bu ñëwee da koy dóor mu wàcc mais aree naa ñaari paa sànni ku booy bi booy bi wàccul ma ne ko bi dal na ko dal na ko pare paa bi man dafa juum wala wala lim wala wala ñu ko jàpp sëriñ moo tax sëriñ si léegi si nekk si làmb ji xamuñu làmb sëriñ internet moo nekk sëriñ làmb dégg du ñëw làmb làmb am nañu ko moom barke sëriñ Bamba Mbàkke làmb da koy dox wax boobu fu na dugg naa fa dugg naa samay maam fu na dem naa fa dem naa barñi dem paataar dem ndóomóor fu na dem naa fa waaye moo ma ñëwee ah, combat dama ko ñàkk waaw bëri naa lu ne li ma ko bëggoon def bu ma ko ko dinañ ne Tapha Gueye mi du nit far moom mu xam loolu ba ma ñëwee damaa remplacé moo dama xam ne mbër la. xaar fa nga mën damaa xaar fa ma mënee dugg tànk bàyyi premier pied de deuxième pied damaa boo ñëwee fa damaa xaar xar téye sama loos téye ngembal xàpp ngembal xàpp boo ko déggee mooy ngembal lu féete ci xàpp li loolu lay ngembal xàpp ngembal dëgg gannaaw am na ngembal colonne vertébrale li ko dalee colonne vertébrale bi jëm suuf loolu ngembal colonne vertébrale la waa devanture bi mënu koo jàpp ca kaw la jàpp daw da doo xalab ma keroog ku ma waxoon toog naa ci dem ne nii siggi ne nii gis ko muy daw mën leen kii du man ba ma demee ba kër ga nag laa xam ne am na lu ne sama yaram mel ni ay yu kii yim du xorondong yuy dox sama yaram bi moo tax man làmb da koy pare dooga mën làmb da koy pare làmb da nga koy pare est moo la wàññi ba heure bii ah lamb yooyu day xaw ma wàññi na ma xam wàññiwu ma de waaye euh, sama àll ci lamb am na lu wàññeeku lu bari waaye dama koy jëli jiwaat. da ñëwaat majj majj laa jàpp def ko lu garaaw ñëwaat. Hmm. waaw. waaw lamb da ngay di ñëw de. zàlloo fi dàqoon bëri ci àddina. bu la waaw xoolal zàlloo njëkk a jóg. ah Idda zàlloo ñabali. zàlloo Ibou Diop. mais xoolal yooyu xoolal Balla Beye de Ibou Diop. xale yi nañu xool ci combat yooyu. niil moom mën na fee jeex ak avertissement yi du jeex waaw. du làmb du làmb soxlawuñ ko amateurs yi bëgguñ ko. amateurs yi boo defee lu ñibbi waaw di gërëm góoroñ doy président des amateurs nga xamante ni ñoom ñoom tamit dem nañ bay tëgg làmb ñoom yàlla yàlla defal jàmb làmb ji lu koy doxal ak lu koy taaral ñun moom rek la def di gërëm waa jàmbaar ñu ngi dëmbali xale yi di leen bëriloo waaye Massour Ba te maa jox euh, Papa Boy Djiné Massour Ba. Massour Ba waaw Papa Boy Djiné war na ma jox waa jàmbaar. waaw jàmbaar waaw ñoom ñoom rek lañ fi nekk tëggal booy yi ñuy të ñu. Ah, ah war na ma laal gaa yi dañoo jàppoon ne da dee musul bàyyi kër ga bu bu rek kër ga saxaar ndax làmb ji moo yor kër ga. dëgg la déggoo tien tien tien ma ko <laughs> man courant bi kañ man waa sonné Sénégal Sénégal rek la wala. Sénégal rek la. waa ñu ma dimbali dindi tien tien bi man tien tien bi laa mën a muñ sama bopp bi. te temps yii Sénégal nag fi mu toll sonal de. teet teet bi moo ko dindi bi Sary Faye moo ma gënal loolu. teet teet bi ni muy gaawee. non teet teet gi kañ foog foog foog foog madame Faye Sall wax ci dara. voilà ah teet ah, teet gi mu ah, mais dafa bëri lu baaxul da lay buuree. moo bu làmb bu bëree rek doo faa doo faa doo faa teet teet bi mais bu làmb gëjee ñëw rek teet teet gi da ñëw. <laughs> kon làmb ji na ñëw. na ñëw waa nag gars yi nañ li ngay dafa xaw a seet ci sa diggante Papa Boy Djiné. waaw xam nga nag xam nga nag làmb da ay sarax yoo war def làmb da nga lekk di ci naan di ci jël oto di dem as ndukkumaan moo ne Tapha Gueye dinaa la jox ñeent tànk maanaam may la oto as ndukkumaan moo ne Moustapha lay may oto nit mosuma ko wax kon kooku bu waxee loolu euh, liggéey lu lu lu lu ñëpp waroon def àdduna li ñu waroon def bu jàppale Tapha Gueye numéro 2 as ndukkumaan def na ko ndax lim dama dajeeg Brésil yi man ma as ndukkumaan damay dajeeg moom fële nee na ma oto bi incha allah war a bi di jot damay xaar ba jot ci su ko defee woo leen yéen ngeen dugg ci oto bi ñu def tour de la plage ma wàcc def ay master canal de soo ngeen jël ma lamb lamb jëm kanam barke sëñ Bamba Tapha Gueye numéro war a dugg ci waan arène nationale non sama dugg ci arène nationale benn yoon laa fa bëri benn yoon nga fa bëri la dañu ko defal si sëñ ping moo ko defal jaar ko jaar la ko ci loxo yow kenn mënu la cee génne dee ci laa loolu loolu lu koy fay kon dañu war a waxal rek àdduna man diaspora bi sumay xarit lañ toldo suma xarit la saw pour la arobam nag meew yi sumay xarit lañ am na benn waay bu la Lamine Naar nekk États-Unis my friend every time i help boo ko déggee mooy jàppale mi ngi jàpp xale yi jógee micro grogro di leen dugg jox xaalis Lamine Naar xale la boo xamante ni ah ma ngi États-Unis all the people boo ko déggee mooy jàppale miss you namu naa la don't forget mi bu ma bàyyi Lamine ni ngay jàppee ñun suñu xol set na si mais day ñëwoo ñun Tarbaxa TV waaw. waaw mais dimanche am na làmb ju neex diggante Bousse ba ki nga xam ne moo di wulli ñooñu tamit nga yaakaar doo fa samp. Bousse Ketchup. leen nag. ñooñu mosuñu génn Dakar bi dem la ba réew fenn du ma bëri naa ñëw jël leen rek Bousse Ketchup ak wulli jël leen làmb ju neex ndax loolu làmb làmb amateur la. Hmm. amateur dañuy bëgg loolu amateur dañuy namm wulli te Bousse tamit gars yi dañu koy namm. dafa commencé neexal làmb kon combat boobu spectacle la. Hmm. <laughs> mais ñooñu bàyyiwoo leen. non bàyyiwuma leen xel sérieusement. bàq si romb naa foofu. daal fi mu toll nii yow daal ma jël coins. coins. coins ba bañ yëngal bi. senti seti. na nga fàttali maa coins laa leen. ngeen waaw. yii coins boo ko jël foog ma dem fële Ndomor. gàll ak gaa bëri. te coins man ñaata jours lay entraîné laa ko bëgg a laaj coins ñaar coins mais sa loxoy jàpp bi vraiment tamit. moo tax mbëri dul jël foog nga wàññi entraînement yi tuuti mbëri mën laa jël mbër boo nekk yonente mu ne non xoolal ma keneen waaw léegi yow bëgg koo jël waaw dëgër fit rek bëgg mu bëri ndax bëri ci lay dundal njabootam ci lay def lépp yonente la kon mbëri nañ ko jël bëri moom mbëri dañu bay bàyyi daw daw di jël mbëri toroon ngay jamono nag noonu la defoon kenn daawul jël Tapha Gueye numéro 2 non non ba léegi nii dañuy bàyyi xel ndax doon xale yi ñeme nañ la non gërë bay tax boo ma ñëwee dama fekk ma taxaw do dóor ma gauche ma waaye boo ko defee mën a lonkee rek nga waaru benn paa ne la Moustapha Guèye matul mbuus te yàq mbuus ak sëriñ ba mag la de waxi mag la matul mbuus te yàq mbuus mootul ma ko barki alxuraan karim moo tax làmb ngi noonu daal làmb ngi noonu daal mais tamit lan nga may analyser ci diggante gi nga xam ne moo di Ama Baldé ak Modou Lo ñu war a bëre la 5 nga laale woon ak Ama Baldé jotoo laale Modou Lo mais seetaan nga Modou muy bëree ah Modou moom ñëpp xam nañ ko àddina bi fii ku ne xamul Modou Lo ah, day wax ko neex waaye ku ne xam na Ama Baldé Modou Lo ak Ama Baldé waxoon naa si internet bi ne leen la làmb du du diire ni neuf minutes waxoon naa ko ndax Modou damay ragal sax arbitre na për mu daw songi Ama ndax pression bi fi toll ci làmb ji fi mu toll ni ñoom ñaar pression bi dafa yéeg dafa yéeg baar bi yéeg na ci kaw ndax làmb ji li mu jege la waaye Baye Ndiaye Luc Nicolaï lamb jooju xam nga tax mu neex ma laaj ma ku ñu ko tuddee. ku ñu ko tuddee. ñaaña gay gann ñaañaate gay gann soog gay gann caba gay gann Moustapha Guèye. Moustapha Guèye eh sama turandoo. ñu tuddee ko bés. Ah. ñaari sër laa war a takk. ah. da war a takki sër bu nu mu la neexee. ñeneen day toog ma ay añ waaye man dama toog sama kër añ. Eh. laa ilaaha illallah. jël ay oto yóbbu. ay oto laay jël comme Tafa Guèye ni mu jëlee ay oto. bisu Tafa Guèye sama bisa. ñaaña gay gann séeri jaraaf. day mën nitam sax nee naa ko réew maa ngi koy coow li mu def Baye Mouhamed Baye Ndeye Assou Baye Khady Gueye keroog ba ñu bëri la diggante damaa jooy mbëri Xaalim Ndiaye ma jooy keroog toog nañ këram ba si yàgg mu ne Moustapha noo gis ma daane Xaalim noo gis ma daane la diggante ma ne ko attaam manière mu ne avant manière ma ne ko waaw moo tax mu ko teex la la diggante xëcc ko mu ñëw mu daal ci boxtaan bi ak âge bi mu am def prise boobu keroog damaa xam deux jours yoo xam ne nooyu ma ah. ci nopp yi laa nooyee nopp yi fa la ngelaw doon jaar moo tax làmb damay damay crisol non non moo tax ma ne kooku. le 5 lan nga lan nga nar a programmer le 5. le 5 damay woo Masata Masata mag Magi Asin Ndiaye woo Baye njaay woo Luc Nicolaï ne leen man damay takk juróom-ñaari set ak juróom-ñaar ànd ak 6 personnes wala 10 personnes. ndax boobu maa res bi ci gratis. waaye nañ ma jox micro bi ma jàkkaarloo Tafa ci ko tribune bi. Hmm. mu xam ne am na lu ko nit ñi war a wax. musu waxaguñ ko waxaguñ ko ko musuñu ko tuddee drapeau li mu def ci làmb kenn musu ko tuddee drapeau waaye bii drapeau am la Ama bale drapeau Moustapha Gueye nga koy bëree Modou Lo 1 ba 26 drapeau Moustapha Gueye ngeen di bëree waaye drapeau Moustapha Gueye Moustapha Gueye dafa lay nekk waaw eh eh woo na ma sama xarit boo Espagne la gente vive España a hecho de menos pero hay darme ese combate es muy importante en la vida barke seen noonu la ëpp daaw kenn du ko bi combat ndax bis la. li mu def si làmb. li mu def si làmb xool ko rek. mos nga gis ko tëri drapeau. déedéet maa ngi koy soog parce que ñi tuddee drapeau yooyu dafa am lu yaakaar ci nit. te Luc Nicolaï xaalu revenu ci Tapha Gueye. loo njukkal ne kon am na. delloo njukkal am na ci làmb. mi ngi soog am mi ngi soog a am. keroog laay woo àdduna bépp as tukumaan laay àndal ànd ak samay nit man Tapha Gueye ne man xam ne maa ko fekk si. lu ma ko jox na jël xam ne loolu sama ñàkk la. ñu dégg Tapha Gueye numéro 1 euh, koroog ci signature bu mujj bi nga xam ne Ama Baldé ñëwul mu Modou Lo comme que Ama Baldé ñëwul maanaam tey euh, lan ngeen may indil sama bis bi nga xam ne moom lañ ma dippee nar ma sargal maanaam loolu noo ko jàngatee. waaw mais xam nga dafa bëgg booy def lu rëy ndax bisam boobu comme bisam bii combat bi ñu ko tuddee moo toj àdduna bi mooy combat le plus important dans la vie dans l'arène c'est le combat qui est très important tout le monde l'aimait boo déggee ñu ñëw le verbe le plus aimé combat bi la ñëpp gën a gën bëgg a amee bii bii day amee xam nga tubaab bi def na 130 fois e soo ko calculé égal box box dina fa am. box dina fa bi xeex bu métti dina fa am. moo dama dama calculé c'est cent. kon 9 minutes yi nga calculé est-ce que tamit dina ko. xeex laa wax bu ñu xeexee bu ñu songawaatee combat bi jeex. bu ñu ne rungum daje. bu ñu ne rungum bu ñu ñëwaatee lamb ji jeex mais lamb ju yàgg 9 minutes laa la waxoon de ba tey jóguma ci bu weesoo 9 minutes surprise la. mais ku juum daan. laa illah combat bi du combat ku juum ñi juum nekkuñu foofu sax Modou Lo du juum Ama Baldé du juum da nga kenn ku fàttali la nga andi mën ngaa daanu. ñu naan Ama Baldé mënul jaar fenn Modou Lo nag. ah ñoom dañoo xam Modou Lo rek waaw loolu ko wax c'est normal dañoo xam Modou Lo Ama bëriwul ak de Modou xarañ loolu lay bëral ku yor drapeau bi. roi des arènes bi moom mu bëgg roi des arènes bi comme moom moo koy jëli ji il faut faire tout pour pour ko jëli ji attentivement baar bi pare mu ngi ci kaw Modou Lo. xool Modou Lo ba mu nekkoon ne ko su ma teeloon gis du ma def cent francs <laughs> xam nga des fois da ngay dem entraînement ba neex sa xel kon xel ma dal nañ ko nangul. mbër bu ne dañ ko nangul li mu doon Modou Lo dañ ko nangul li mu doon Ama Baldé la nee na di taw nañ ko nangul loolu nañ ko nangul loolu mais li ma leen ñaan yëpp. di ko ñaan CNG géew bi nañ ko sécuriser bu mbër laalal mbërul mbërëm dara buñ ko bu loolu amee rek lamb ji fa lay tojee ñaari mbëri ku ci laalal sa mbër dara ci géew bi lamb ji fa lay yem moo tax CNG nit ñu vigilance bu baax ci lamb ji du lamb ju ndaw de déedéet li ko laal li mu def ci xaalis li mu def si xaalis communication hmm. allool ah, du lu ndaw nag waaw di gërëm def sport. mais tamit euh, il fallait nga si euh, sensibiliser supporters yi nga xam ne kenn ku ne ci gox bi ngay jógee ñu ñëw tamit indi ci fair play ndax làmbul la rek. Ah, ah, man li may wax supporters yi mooy sport dafa neex supporters yi dañuy taaral làmb ji dañuy way di taaral làmb ji di supporter seen mbër euh, mais nag combat bi dañ leen ñaan ñëpp ñu sensibiliser na ñëpp dal bu at bi tiré ñu xool combat bi fi mu mujj ndax combat boobu fu mu am fu mujj ñoo ñaari mbëri foog mu am fu mu mujj. mënu ma si ni la. kon supporter bu ñu bëggee combat bu yegg nañ toog seetaan làmb ji bañ a xuloo bañ a xeex naan naan si euh, euh, tampi kii nag ñu tudd Catalina euh, woo naa ci biir Stapha Gueye numéro ndax bëgg naa nga jàpp ci jox gaay xale yëpp ay tampinkoo zak mbaaw bi tampinkoo yi daw ma duggee Fass mbaaw génnee waa Fass mbaaw ñu dem ci biir Stapha Gueye waaye supporters yi toog leen jàmm góorandooy wax ak les amateurs ñu ñëw stade en massivement sol lu rafet ndax du am xeex xam naa du am xuloo te xam naa làmb jooju mooy làmb ju doxal làmb kon làmb ju doxal làmb nag kenn du ko laaj kenn du ko yàq di leen sant di leen gërëm maa kontaane mais balaay boobu foog nga wax ki nga xam ne moo di ah, Papa boo Djiné benn moo boo xam ne mu gën laa bàyyi xel Papa Boy Djiné boo bëggee dégg-dëgg jinne ji nangu naa ko nga jël majji majji majji majji nga ko jox bàyyi naa la majji majji ma jël jinne ji Bécaye Mbaye nee na Tafa Gueye bàcc na ca Lambeer ña nga ca kaw boobu laa lay andil mm. ca Lambeer laa lay andil kon jinne bi nangu naa ko bàyyi laag Madji Madji 2. loolu tey loolu. Ah, xaaral ah. <laughs> ah. sama waa ji yaram yu na de. am na àdduna. la. dama la bëgg woon sport. dafa am ni ñu koy defee. Hmm. <laughs> dafa am ni ñu koy defee de. barke Serigne Bamba Mbacke. gone yi dañuy fàtte de. Eh, gone yi dañuy fàtte waaye man fàttewu ma xam nga su ma ko nii. waaw. yaakaar ne la liggéey ma liggéey bés biceps. eh waay biceps bi laay liggéey màjji màjji laay wàññi nii de. biceps bi màjji màjji laay waxal nii. na ko Baye Ndiaye boo ci waxee rek. ama def ko dóom nii laa koy def nii su ma neexee nga yaakaar ne bii xale yi dañ koy xool entraînement derrière fi nekk ci ay mouvement mënoo ko wax dëgg la ndax entraînement mbëri hmm. mais xam ne làmb hmm. <laughs> du ay jaaxaan barki Serigne Bamba Mbacke eh laa ilaha illa doo mais mais mais yaa ngi ciy forme bi laay pare lii maag ma ma Papa Djiné. waaw MMA la. la xoolal boo ñëwee ba fii. da yaakaar ne lii seize la. waaw ndekkee dips. dips <laughs> boo gisee dips. xool tànk mais mi ngi koy pédalé. lii lan may. non triceps bi la ak quadriceps. xam nga su doxee ni làmb. Mhm. box. eh. ay la xay la la Papa Boy am na problème de. eh. ngaam laa bëgg di ngaam li. Ah. Eh. tàng na de. waaw waaw. non barke Sëñ Bamba seen bi yaa nga ne ngaam yi laa bëgg di bu ko defee bu ruy ñëwee. mu koy warax. di nga di nga tooñ ndey géey de. ndey géey na ko utal xam nga dëgg ga kenn du ko poosé moom yàpp bu jotee léegi da koy màcc. ayca <laughs> merci beaucoup maa ngi lay kontaanee bu baax a baax. waaw ziar naa leen bëgg naa leen bu wér yéen ngi fii people. ayca merci beaucoup. jaay waay ayca beaucoup ñu ngi lay.